ñoo leen siyaare ci bis bu màgg bu tedd bii di bis bu tëbës bi xëyee mooy bisu bis bi xëy na mooy kilifa bis yi ndax lu nekk daa am kilifa tëbës ki nag mooy kilifa euh, bis yi moo ci dàq moo ci gën neex ah, <laughs> ndax moom ah, day loo xam ne nii xar miñ fi rey di ko xëy yàlla na ko teg ñu koy kii mu watee nit mi ngi bàyyi ko ajjana ñu jox ko jibril mu jiit ko su maam ibrahima mu mu moo tax mu tiri ab yonent ñu remplacé fa xar ma xar moomee nag moo waral ñu sos tabaski ba léegi ñu koy ñu koy ñu ciy farataal xar mooy première bi xay moo gën ci li ñu rendi xara ci gën a ëpp daraja ndax moo moo moom la yoon moom la yàlla yónni woon jibril na euh, naawal li nga mën a am ndax boo bu fekkee ren ne ko te rek yow daañu daañu daañu far sa sa tur ca àjjana loolu tax keroog la naaw na juróom euh, euh, laafam yëpp keroog la ko naaw daal di téye ba mu jëyee ba ñëwee daal téye loxo maam sunu Ibrahima rek daan na ko sa borom la jox xar mi nee na nga kii ko te bàyyi te bàyyi Ismaïl <coughs> loolu la ci la tëbaski sosoo moo tax. Eh, kenn du ko def ci gàtt bu xam ne dafa lappaas wala bu yooy wala bu eh, am tawat wala bu kii dañ koy def si gàtt bu xëy day day du dañ ko yar ba mu baax eh, te suñu mbokk yi si def di ko wax naan ndawal gu duuf waaye ndawal bu mën nañ loolu ay teggin di gën a baax daal mooy ndawal bu baax mooy xar ma xar ma dañ ko yefal ba mu baax suur bu baax moom nañ ci moom lañ ci tàmm mm-hmm. ndawal googu nag Euh, léegi nag jamono ñi nii ñëw na léegi ba ba daanaka ñu bari yàq dañ xel yi nit sax ci ndawal daanaka duñ si xaw a ndax dañ buñ koy lekk sax dañuy xaw a mel du tiit day ànd ak ba xëy na daanaka dañ koy xawar a lekk ah, duñ ko sawar a lekk daal dañ ko war a lekk ndax daal dañ euh, wax nañ leen ci ay wax yoo xam ne nii yu bari bari bari ba daanaka rek fi ne nii nit ñi xaw ñu moo ñemeetee lekk ah, te ndawal dafa baax ci nit li ñuy lekk ci nit li ñuy lekk ci maanaam kii euh, li nit di lekk ndaw la ci gën a ëpp doole ci moo ci ëpp euh, mën a maye kattan loolu yara yàlla dogal boobu lépp luy maye kattan ndawal moo ci gën a euh, a mën a maye dañuy wax nag ndawal bu bees moom baaxul daal maam lekk ko jàngoro yu mel noonu. loolu wax la rek ndawal tabaski da nga ci lekk bu baax a baax baax a baax a baax a baax kenn ku lekk ci bu baax du du du wàññi dara da koy saaf léegi xam ba njëkkan dañu daan def ay ay ñeex. ñeex yooyu ñu di tuddee soos loolu moo daan eh, tax biir eh, yi daw ak nangam nangam yëpp waaye léegi xëy dañ koy ba xëy jamono soppi ko ba xam ne léegi dañ koy dañ koy saaf ñu koy wax wàjji ak lakk yooyu woowu ndawal du wàññi du wàññi nit dara eh, loolu moom du wàññi ndax boo boo lekkee ba noppi mën nga naan gasel mën a naan wimto mën a naan limon yeeg boisson limon yeeg boisson spara yeeg ak daqaar ak yëpp loolu ci naan da da da koy dara waaw loolu moom ku am nañ boisson ak ak ak yàpp baaxul loolu lay wax rek boisson baax na lépp koo xam ne ni boo ko ubbee mën a rek eh, day day day dugg ndawal da koy defar boo lekkee day gaaw a rees ah, <laughs> te loolu rek ci am solo waaw koy mooy bu am gaz ci siw daqaar it baax na bu dee guddee itam bépp mag bu xam ne nii da xaw a def mag xëy lekk boo ci lekkee boo boo ci lekkee ci ndawal gi saafal ko ci bu dee sa nga am sa yaay wala sa maam yoo xam ne nii ndeysaan bëgg na ndawalaay day day ci xaw a tiit wala ragal jox ko jox ko ndawal ko ba nga nga toggal ko mu ñor mën nga ko toggee ndox sax nga toggal ko ci ba mu ñor nga jox ko mu lekk ci ba suur nga nga nga baxal sa sexaw sa digg cafetière sexaw nga ko jox ko ci ñaari kaas mu naan ko ci teg ko ci balaa tëdd loolu bu defee itam dana dana dana am jàmm ci guddi gi euh, euh, dana nooy ay ay bakkanam yenn fat ak dana moom dara dara du ci fat dana nelaw nelaw yu neex ba yàndoor euh, ba suba moo am jàmm loolu itam digal naa ko digal naa ko képp ko xam ne nii. jën la maanaam xoolal fi. yooyu yooyu dañuy wax rek <laughs> yooyu yàpp gën si yàpp gën lépp lu ñuy lekk yàpp ji gën si nit yàpp nag. kenn ku dundee mais yàpp baaxul. yooyu dañuy wax rek dañuy wax rek yooyu nit. nit ñi tension. mais médecin médecin ñoo ko wax Baye Dame. waaw xam nga médecin yi itam tey dañu leeral ba yenn saa yi dañu leeral ba mu leer gis nga nit ki eh, eh, eh, xam ne ni yàlla daa def mu xëy ni mu matiwu ko lekkul lekk yu baax yoo xam ne nii ah, ah, te mu ngi bëgg am dara di sonn di kër kër di son ak dox ci naaju ba ñaq ba la paas ba xam ne jaram yi wàcc na kooku tension am day wàcc kooku tension am day wàcc. kooku na tension wàcc boobu nag moom li koy mën a li koy mën a li koy mën a réglé waat. mooy mu lekk mu lekk uh, ndawal bu baax ak yu mel ne loolu moo ko mën a loo ko loolu moo ko mën a tax mu uh, mu niwóote uh, ab tasiom niwóote ndax moom daa daa wàccale ke wàccale kay day lekk-lekk bu baax moom ba ki ginaaw ke kee daa amoon njaram di lekk ba xam ne nii garisam bari na tax moom tasio bu ko daalelee ndax ñëpp sax du ñëpp am tasio tasio day am ni ko yàlla jagleel rek ñu am ko waaye am na ñoo xam ne nii fii dañuy lekk toujours ndawal di lekk noo ko neexee waaye dañu yàpp de am koy lekk toujours taa suñu bokki naar yëpp dañ ko lekk te du tax ñu koy am léegi yow yan conseil ngay joxe yoo xam ne waaw loolu laa wax dama ne gis nga waaw gis nga nit ki bu xawee faiblesse ak yooyu di dawal daa baax ci moom ndax ndax ndax ndax da koy dellu ci da day dellu ci euh, ba ba ba tension euh, niwute baax mu ne ne ne ci xëy dañuy wax normal la kooku kii fan faiblesse ndawal moo ko mën a dellu ci ba ba ba mu amaat euh, euh, ba mu amaat euh, tension bu n bu am bu néewate boo xam ne day day néew néewate normal ñu ne ñu ne bu na na sa tension bi normal la kooku ndax daa faiblesse am daa wàccoon yaramam daa wàccoon kon nag fokk moom tension bi daa wàcc kooku nag kii ko mën a yéegalaat nag mooy mooy mu nekk ndawal bu baax ba yaram bi fonctionné waat ba ba ba ba tension mën néewate baax madame day xool caméra normal xool ki xam ne nag dafa dafa dafa am bari graisse kooku moom bu dee lekk ndawal du continuer ko mën naa am euh, mu daane ko bu fekkee ne ko ko kii ndax xam ne sax ñoo xam ne du leen wàññi dara waaye nag kii kii mu wàññi dara moo tax ñuy wax bu fekkee ne bu dee ba mu daane ko nag kooku nag kooku nag moom daa war a daa war a bu lekkee ndawal euh, da ci lekk lu yem wala kooku jënd na baax ci moom wala loolu waaye bu lekkee ndawal itam daa war a naan euh, lu koy lu koy lu koy lu koy wéral xëy day day naan day naan naan naan sexu bu naanee ñaari caxuta balaa tëdd bu soobee yàlla dana am dana ko dana ko dana ko néewute ba ba ba tension normal bu dee ko am yaram ki wala loolu boo ko lu mu lekk si ndawal bu dee def saa yu xam ne lekk na ko guddi euh, na naan ñaari kaa si caxaw du ko wàññi dara dara dara. mais graisse gi ñu koy saafee nag am na ñu naan baaxul graisse yooyu duñ koy saafee yooyu dañuy wax rek ndawal gu baax foog mu am graisse mun na ñàkk kenn mënu ko tàggatoo graisse baaxul graisse graisse laa ni mun euh, ndawal mooy am graisse boo gisee lakk lakk ko baax boo ko lakkee euh, graisse gi day siit des ci taal boo boo defee ndaw gi dong moo fi moo ci moo ci des. kon daal moom dañuy wax di lekk yàpp daal waaw waaw nañ ko saaf wala ñu wala ñu lakk ko loolu moo baax waaye boo boo dee togg nag moom te tam tewee togg moo biñ toggee ak ndox baax na biñ buñ ko toggee ndox mooy. ba tey mais saf safal yi ñu ciy def nag. saf safal ajaa yeeg eh, ajara yooyu yëpp baaxut jumbo baaxut. Mm. jumbo baaxut te jumbo li tax baaxut moom daal sëñ sooy boo wax na ko sëñ sooy mu nee na li jën ak yàpp ak nen kenn du ko boole boobu te gis nga fi ne euh, jumbo euh, ci nee nañ dañ ko liggéey ci boutique yi euh, jën ak yooyu ndax moom koo lekk sax xam ne sëf na jën ñuy doog caa def nag simili yañ ca def ak bam yañ ca defaale yooyu yëpp yooyu denc koo caa def moo tax baaxul jën kenn du ko ndax jën lañ ko defaree moo tax boo ko defee ci yàpp nag eh, boo def nga jën ak yàpp. te loolu loolu boo jën moom jumbo. waaw jumbo moo tax da baaxul ndax daa am chimique moo moo tax fii nii daa am chimique. Ah, te jën lañ koy defare yow léegi kenn mënu koo woor jën ak yàpp kenn mënu ko bool. si léegi looy wax usine bi koy defar. nga bi koy defar usine liggéey kenn lu ci lekk euh, jumbo. ñoolu hmm. moom ñë ñëpp waa xam nañ ko ñëpp xam nañ ko kon nag moom boo gisee ñu leen ko tere loolu baaxut daa baaxut jumbo baaxut ndax képp koy wax jumbo sax da ngay tàmbali ci baaxut ba noppi ak ku ko mën a lekk moom yan tawat la mën a def ci yaramu nit moom day li muy jégg day day téye ak ak ak ak tawar yu bon bon yàlla yoo xam ne nii yëpp moo ko joxe. Euh, te li muy gën a defal mooy téye say tànk téye téye sa yaram. boo boo defee nag euh, sa der ni mu war a doxee du ko doxee bu ko defee nag tawar euh, day daal yomb kooka ndax am na ñoo xam ne moom yàlla berane leen dara du leen da dañoo wér yàlla moo leen di ko defal. léegi léegi léegi bàyyi daam ndax moom ñëpp wér di tax ñuy wax. léegi ñooy wax looy wax jigéen ñi nga xam ne moom ndawal gi moom buñ koy togg lu ne lañ ciy def suukar ak jumboog saf safal ak beurre ak moutarde ak lu ne jamono ji boo ci euh, euh, saf safal yu bari yi tax na kenn léegi yow ah, da ngay wax léegi ban ban conseil ngay joxe maam ni niñ ko war a toggee mu jaar yoon waaw ndawal gi nan lañ ko war a toggee mu jaar yoon ndawal gi moom ndawal gi moom euh, togg bi moom da ngay da ngay da ngay wàjji bu da ngay wàjji bi euh, wàjj nag boo koy togg boo koy wàjj da nga koy def ci cin te bañ ko bañ ko bañ ko bañ ko sumba sumba sumba ba mu fees da da ngay sumb sumb ba jëm rek euh, nga bañ ko ub boo ko day day ndox mi day ñaq di def ci kii bi ba tey ndawal da ngay gudd di euh, kaasu bi nga def diw moom nga koy moom ngay def ci moom nga ko ñulugee def ci ndawal gi rek ndawal gi noonu saaf ko ci nga bàyyi ko ba saas nga nga saas ci ci ndawal gi ba mu ñor boo ko defee nga bañ ko ub boo ko defee ndawal gi day ñor feri day feri doo am doo am benn kii doo am kii boo ko loo ci lekk doo am danger doo am danger ndawal gi day feri ngay lekk mu neex lool nga def soble a yooyu rek doy na fi ne soble ñu bëri xamuñu sof kaam te boo defee boo ko bàyyi noonu rek nga xam ne soble moo neex soble soble soble daal déggoo lépp lu ñu togg loolu laa ko rek déggoo naa soble am na solo de déggoo naa soble ah bàyyi am soble am na solo de daal ak laa ko ci daal soble déggoo déggoo naa ak moom waaw yooyu waaw yooyu rek la yooyu rek maanaam bis bis tabaski moom lekk si ceeb dagan na. dagan na kay dagan na dagan na hmm. mais nag <laughs> dagan na kay. waaye na ay na ñëpp lekk ndawal ba mu baax. Hmm. boo defee ñu naan ci si euh, kii daxaar yeeg yooyu ak ak yooyu rek boo ko defee daal euh, doo da am jàmm. Hmm. amul kenn koy ndox day fër loola. ndox day wax rek. naan euh, say ay wim toog ay. boisson ak gasel ak yu demee noonu. ak ciw daxaar yeeg. ciw limon ak yëpp daal ah, loo ci naan rek boo ca tee ci ndawal gi dana dana rees ak jàmm hmm. te rees la ci hmm. loo lekk mu rees nag baax na jig na la hmm, loo lekk mu rees rek mu jig la léegi moom li ñuy yëpp naan ba ci ba ci euh, da ngay dégg fii ñu naan euh, lii daa am daa am euh, kii pat daa am pat da ngay dégg ñu naan lii da pat pat lan loolu boo loolu ba yow ceeb ak loo ci lekk loo ci lekk mu rees ndek am na jàmm am nga jàmm am na jàmm ci nit yooyu dañuy wax rek dañuy bàyyi léegi mburu taxul taxul boo la ndax moom yooyu wax la wax rek dara la wëñ ko lekk mu rees dara lu leen wëñu loolu lekk mu rees rek euh, euh, amul problème léegi ñu loo lekk mu rees am na jàmm. léegi looy wax sa sa kii lay toog loolu woon dañuy wax rek yàpp duuf eh, moo baax kenn kenn gis eh, yàlla digli na nañu rey eh, xar mu lappaas wala duufut da ngay rey bu jooy wala bu wala bu jooy dañ koo tere dañ ko tere ci tëbës yàlla da ko tere moom kan kan mooy yàpp xar bu xëy daal duufut wala suur nga di ko rey ñuy wax ñëpp dañuy wax rek dibitéel ba du ko rey kenn du ko rey yàpp duufut kenn kenn bugg kenn du jënd ndawal di bañ fekk yàpp boo xam ne nii daa daa mel ne gàtt ba daa wopp nga ko jënd yooyu ay wax la rek ak naawal nit ñi ndawal dañ koy tuddee ndawal gu baax bu waaye buñ ko tuddee ndawal gu duuf yooyu yëpp bëgg bëgg a sànq rek bëgg leen ko tere rek la di leen lekk ndawal gu baax di di di di di naan di di teg saxu wala loolu du la wàññi dara dana rees si jàmm waaw dana dana reem dana rees si jàmm te loolu rek lañ ci soxla nit ki nga lekk mu rees rek am solo loolu lekk mu rees rek jig euh, na la. jërëjëf baax na am na jàmm. jërëjëf jërëjëf looy tàggu sa fant yi nag ñi nga xam ñoo ngi lay topp chaque année. ah li topp chaque chaque année. daal moom euh, loolu rek moom lu may lu may gis lu xay ni mën nañ cee wax rek ñoo nu wax caan ca. boo mënee euh, bàyyi sa numéro. pour bu waaw bàyyi man nag sama numéro mooy. 77. 801 78 12. loolu mooy sama numéro.